dali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di la Tribune Vox Populi Libération waa Grand Place yéenekaay yépp xëy dikkal ñu ci kuréel gii di noo lànk noo bañ ni ki démb ci àjjuma ji ñoom nag wàccoon nañ ci mbeddi ndakaaru yi daal di nag doore seen manifestation c'est essentiel bu foire dox wutali nag rond-point Liberté 6 yéenekaay gi mu ñu xamal lan ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ ni ki démb nag amal nañ mobilisation bu rëy waaye nag bëri woon na lool ñi nga xam ne maanaam ñooy troisième âge maanaam paa ak ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi yéenekaay gi mu ñu xamal lan ba ñu demee nag ba romb camp pénal ba nga xam ne fa la denc Guy Marius Sagna yuuxu yi nag mel ni tulleeg male libéré Guy Marius Sagna journal bi mu ñuy xamal lan ñu collectif nañu lool waaye nag ñoo ngi wéy di teg pression ki nga xam ne mooy Macky Sall ñoom nag jamono ji la xam xamlee seenu combat daal du ñu ci deltu ginnaaw benn yoona te nag la nga xam ne moom la ñuy sàkk mooy njëgu courant gi nga xam ne dañu koo daal di yokku ak Guy Marius Sagna mi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne dañu koo tëj ci anam bu jaarul yoona ñu daal di koy libéré ba tey ñoom daat nañuy xam ne nag jamono ji Macky Sall am xam ma ngi kay bay ba la yéen kay gi de la turbine mu ñu xamal laa ñu niki démb moo taxit fi nga xam ne moo tolloo ak camp pénal ak li ko wër yépp bëri woon na ay takk der yéen kay gii di 24 heures daan na dikk nag ci cacophonie bi nga xam ne moo am ci ñetteelu mandat Macky bi nga xam ne ñenn ñi ñoo ngi koy daal di laam-laamee ñi nga xam ne nag ñoo ko jege ñoom jamono ji coow li ñoo ko indi waaye li am ba des mooy Macky Sall war naa leeralal askanu Sénégal maanaam Macky ci boppam war naa wax ndax caaxaan yi askanu Sénégal maanaam mérito wuñu ko est ce que sax jamono ji mën nañoo wax ne gaal gi am na capitaine maanaam am na ku koy dawal ndax jamono ji gis nañ ne débat bi daan na yëkkatiku te Macky Sall yëkkatiwu ci ay kaddu journal bi ne Maître El Hadj Diouf moom nag daat nay génne Macky Sall ci course bi la mu xamle mooy Macky Sall du def beneen mandaa ndax amu ci sañ-sañ te ñi nga xam ne ñoo ko wër waruñu koo mën a dugal ci giraawaal yi ak musiba mabba kumba moom Maître El Hadj Diouf dem sax bay wax ne Macky Sall ay ijo ñoo ko wër maanaam ay naxa-naxa yéen kaay gii de la turbine mu xëy di wax ci lu jëm ci ñetteelu mandat bi Macky Sall nag ba ñu ko laajee moom dane du wax wax wii du wax non waaye nag ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaaleem ñenn si ñoom nag jàpp nañ ne Macky Sall war naa def beneen mandat waaye nag ñi nga xam ne daal ñu ëpp doole ci réew mi di peuple bi maanaam askan bi ñoom nag non la ñu voté ndax ñenn si ñoom dañoo xam ne ne Macky Sall nag dafa war a wàccoo ak li nga xam ne maanaam mooy kàddoom ak constitution bi ñenn ñi jàpp ne Macky Sall nag xanaa li nga xam ne moo fi xewoon jamonoy Abdoulaye Wade xanaa yéewu ko ñenn ñi nag daal di wax ne en tout cas li am ba des du ñu nangu benn yoon Macky Sall di am beneenub mandat ci bopp réewum Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ci biir yéen kaay gi Vox Populi ñoom cadre APR yi la ñu xam le ne débat bi nag maanaam dafa jaadiwul sax jamono ji ñu ko yëkkati ci réew mi te ñi nga xam ne maanaam ñooy jóg di ko wax ñooñe nag engagé wu ñu APR benn yoona libération yéen kaay dikkal ñu nag ci njaaxum ak tojaange yi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko ci ministère de l'hydraulique libération yéen kaay mu ñu xam la ñu nag ginnaaw bi ñu mandat de dépôt ki nga xam ne mooy Mamadou Sané ak Mamadou Diokhane ak Gorgui Sow ak Richard Tendeng ñooñu nag la taxoon ñu mandat leen dépôt dañoo gisoon ne am na ay tojaange scandale bu amoon ci ministère de l'hydraulique toll ci cinq cent millions ñooñe nag ñaar si ñoom daal nañ leen di bàyyi ni ki démb di góor gi sow mi nga xamante ni moo jiite société bi ñu dénkoon ngir nag mu daal di liggéey juróom-ñaari forage te juróom-ñaari forage yooyu nga xamante ni moom lañ ko waxoon pour mu liggéey ko fay nañ ko xaalis ba kaas-kaas lépp waaye nag foo def cee daal di am ak détournement moom moomee daal nañ koy bàyyi journal bi di libération jàpp na nag ay théâtre dëgg moo ca daal di am stade a ñu si classico Real Madrid ak Barcelone nga xam ne danañu daal di laale ci dimanche bi nga xam ne moom la ñu daal di dégmal ci stade Bernard Bayou yéen kaay gi ba tey daal di wax ne nag beneen choc dina daal di am ci itali diggante Juventus ak Inter de Milan waaye nag match boobee huis clos lay doon maanaam kenn du ko fekkee la waral mooy jàngoro ji nga xam ne mooy jàngoroy coronavirus yéen kaay gi di sunu làmb mu ñuy xamal lan ñu yi nag jamono ji daal nañu wane seen naqar ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy daal di dund ba pare daal di interpeller ñi nga xam ne ñooy waa CNG ñoom Alioune Sarr sax nee nañu ci week-end bi du ñu arbitrer benn combat làmb ndax ñoom nag la ñuy sàkk mooy seeni indemnité ñu daal di koy yokku pare wut ab police boo xamante ni daal mooy leen di aara ñoom nee nañu nag dix mille francs rek lañ leen di joxte loole nag dafa daal di tuuti Balla Gaye 2 daal di wax ne nag ñi nga xam ne ñooy arbitre yi mérité nañ lu ëpp dix mille francs